Kan uh, kan ah. kan Ang sama kaw namo koy namo koy organize bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax. Xew ko mi dañ organize. Xama kan lay wo? Ah, Pam Malik lay wo? Pam Malik. Da ci invité nak Sambu. Waaw waaw xam nga waykat baa moom mooy waykat bi Ah, kii Pam Matar. Ii, bu boobaa dina bëri nit Ay nun ñu ñuul. Yow ya, kon su boobaa na say eh, invité. Ah, kon be gis muy xonk rek ah. Waaw waaw. Xanaa ngay ber kon say nit ber. Duñu lekk. Dama dakal dakal ñuul. Kon daal sama xew fexeel rek. salaamaaleykum. maaleykum salaam. xale na ya. iya, ngeen def. yéen ñii. xanaa ya yow da ngaa dof ay magum jëm ay muskala mota sëy nga daan ay xale ndaw bu ko fi waxati de. kon ay mag ngeen ni ay magum jëm ñoo fi eh ana Fa Faa mu ngi biir. tama de combe combe combe. xew bi nar na ne. non yow di nga dee di nga dee yow comme naa xam naa ne bëgg naa jigéen waaye yow moom da nga yaa nga hôpital. waaye loo mel ni kuñ ñu tàggee jàmbaar lu la dal. ak sa kanam gi di saxaar <laughs> yow de amati nga problème. Ndiaye yow yaa gën suñu kër man naqar doomu laa <laughs> gi yàgg nga ci di yow ba sa yaay gaañoo ba léegi ci naqar nga ne danga naan amati naa problème. bee lan la. lan la bébé tey danga calme. non lan la. non lan la. bu tabaski bi jotee rek ngeen di wut ay mbalaan di wut seeni dóor quoi kii bu géré greffage kii géré ganila kii géré daal. lan mooy tabaski man dama faale ay tabaski yooyu man dara dafa fees sa mbët ba may wax yooyu luy loolu. yow fan nga nekkoon dem. dem sama yaay moom yónni woon bee lan la. saa vingt et une heures lay yónni ba zéro heure trente. dañ rien. yow dof nga ma teg quoi. non tout sauf ça jàppewu ma la dof mais yow da nga bëgg ay wax dañ ma yónni woon kese boo amul confiance ci man ba léegi dootoo ko mës am tu sais que dund naa ak yow situation bu nekk et tu sais très bien que je t'aime énormément donc waroo ma wax loolu ay wax tabaski quand ay détails la. man sa waxuma loolu. Jibi Thiam nee na woo na la ba sonn jotu pour affaire ñawu tabaski bi am sa téléphone. dangay fekk néew bu tëdd nga di ko dompat yaa gën a tey ne sama téléphone ya fa yàqu yow sa téléphone dina yàqu yàqooti te dama ne la nga jug sangu ba set sol sa yére gàddu sa saak génn si tali bi waaju baax gis la defal la teraanga nga bañ eh man nekkuma ci yooyu de yaa gën a tey man affaire farantu yooyu nekkuma ci sama papa daf ma koy tere rose xam nga nii dama la bëgg loo mu bëgg bëgg naa la lu ko raw ah c'est juste que bëgguma nga mel ni yenn fii quoi est-ce que tu gis nga jigéen lu yàq dërëm dafa gaaw bëgguma nga mel ni yenn gel yi di am yenn comportement yi. non tout ça ça loolu moom bokk sama affaire. waaw dama bëgg nga am fulla am fayda. gëm sa bopp surtout dañ la saa yu ma ñëwee rek nga def ma les du baat ma. si si d'accord. yow mënoo maa may jàmm ak sa papa. xam na la laa lay xamal gis nga ñun ñu gànnaar waaye xam nañ mël faa fay sañse te attaayaa fay boisson yow sa papa mi la koy tere mu ngi toj dëkk bi sa papa doxaan rek la fi eh, nekk eh, Ndeye Ndiaye doy na yow da yaa ngi commencé ëppal na sam mun naa ko waxal jikko bu ne mm. sauf affaire doxaan yu ñàkk fayda yooyu moo eh, ko waxaan nag may may yow ba ñu dalee ànd ba léegi dama laa mos wax luy dañ sa papa ci boppam doxaan lay def xale bu ndaw lay doxaan fii suñu koñ xam nga xale bi barki dem lu ko sa papa defar xale bi ne ko carrément suñu seng yi comme boroode damaa bëgg nga digal ñu ko ndax bu tawee duñu nelaw ba bërsëg mu teppi seng yi xoolal da koo kuule teraanga gu bari la fay def ci kër googu lu ne mu wàcce ko fa man la nga xool ci man mii man rek ci xale bu amul bàkkaar eh wala yow nga fees dell ki bàkkaar eh nga may saf ul comme ça jaaral nii mu gaaw Oui, Mais mon yabouma, yow yama Maintenant, je comprends. Kon nak li mo taxone nga là. ni malaka Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. donc ki mom mo Mais dinañ ko régler Je viens d'arriver, dinañ ko régler.